lu ñu prévoir ñu ngi si nii mais dañu ko bëgg jaaral si yoon ba nga xam ne benn accrochage du am entre agent mairie bi ak euh, ces vendeuses la parce que am na plusieurs actions yu ñu fa mëne ñoom ñi ne si biir marché bi xam nañ ne plusieurs fois dini lañ leen fa mais la dernière fois dafa amoon ay échauffourées entre les vendeuses et nos agents donc ñun dañu ko jaaral léegi par la voie légale donc on écrit aux autorités compétentes et dans pas longtemps di ngeen gis ne effectivement action dina fa am te ñii di jaay jën dootuñu fa jaay ci jën ci trottoir bi incha allah mais des fois euh, bon doo doo bëgg euh, attaquer le problème comme n'importe comment mu andi problème yoo xam ne dina peut-être dépasser dina dépasser euh, cadre jënd ak jaay donc ñun loolu moo tax ñu jaar si préfet jaar nañ si préfet léegi ñu ngi service d'hygiène donc incha allah ci fan yu néew di ngeen gis ne ne def nañ fa ay action pour dindi leen fa il faut que ñoom jaaykat yi ne ñu muñal tuuti rek effectivement ñëw nañu maire yi dindi nañ fa vendeuse yi plusieurs fois mais vraiment dafa nekk nit ñu xaw a metti ñu xaw dëgër mais dinañ dinañ leen dindi incha allah si fan yu néew.